ku wax li di café Touba sa xel day daal di dem ci li nga xamante ne ni mooy yoonu murit fii ci mosquée ji naan ay junni junni taalibe murit dikk di amal seen ziar waaye it di waajal li nga xamante ne ni mooy ubbite mosquée Massalikul naan ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weexu septembre bi ñu jëm ba tax sax ñi nga xamante nii ñooy waa Oxlu Café féetewoo lépp li jëm ci wàllum séddale kafe yi ci jox ko ñi nga xamante nii ñooy taalibe murit yi ànd ci nag ak mbégte lool. Serigne Touba nekk ñu dem def ko fi addi Serigne Touba rawatina nag fii nag moom dañ cee feeñal suñu yéene bu baax a baax a baax ndax li nga xam ne moom lañ fi yéene woon def ci café ren bi ñëwee li nga xam ne moom lañ waroon def ci semaine yëpp daanaka ci par benn fan lañ koy def ndax soo gisee euh, bis bi set xamuñu ñaata mbanay café la ñuy seet ba ko cent litres ñu gis fi nañ ko segg ba mu fees seddale ko def ko addi Serigne Touba nag mooy liggéey Serigne Touba li mooy yaay tàmbali rek waaye moo eggale. wax Euhlou Café sa xel daal di dem ci ki nga xamante ne nii mooy maam Issa Mbacké nga xamante ne nii du gulet saa bu taalibe mu di jotee mu génne li di xaalisam jëndee ko café ngir daal di leen i berneel moom nag daal di am kontante lool ci liggéey bi nga xamante ne nii mu ngi am fii ci mosquée Massalikul Jinaan. ndax ku ni café Touba dañ ciy financé ñun ay millions nga wedd ko ndax café nit ñi dañ ko ginnaaw ndokkeel ndax moom soxna si sax di ñu xamal ni ñaar fukki fan ak ñett ci weeru septembre ba léegi mu ngi fi nga xamante nii mooy ci mosquée Massalikul Jinaan di am li nga xamante ni mooy wàllum séddale kafe bu ñuy xamal ni boobu léegi lu toll ci ay ton ci ay kafe ñu ngi koy segg di ko jox taalibe yi. buñ fi ñëw léegi te ñun le 23 lañ fi ñëw. ñi waa fekk murid yi ñoom gi lañ bëgg moo leen gënal lekk moo leen gënal naan liñ ciy segg ci café ay bërigo cent litres bu nga segg ci lu mat fukki bërigo balaa ngoon mu jeex ji noonu ak bernde yi noonu kon dañ koy sant Sëñ Tuubaa fii ci Masaalikul Jinaan ñi nga xamante ni ñi ñooy taalibe murid di rafet lu baax liggéey bi nga xamante nii kii di maam Issa Mbàkke mi ngi koy def di leen beex neer ci li nga xamante ni ñi mooy wàllum kafe sa waxtu bu jot